loo defal sénégalais dinañ ko yàq parce que problème mu cerveau la ñu am mais je le dis haut et fort le débat est trop bas trop trop bas moo tax souvent may wax naan bu ma politikoon naa am lu bari mu duggoon réellement ci politique bi gars yi dàq ñu ma wax ëpp ñu ma cerveau dàq ñu ma réfléchir ñu ma nekk fàq man ëpp ñu ma sañ-sañ dàq ñu ma wax ma duggoon ci politique bii non dama ci am àdduna li ci biir parce que terrain vide la ñaawum làmmiñ la tekk laa def ñu jàpp Ousmane Sonko di ko saaga ay ndey di ko saaga ay baay di wax wax ju ñaaw ci yaayam di wax wax ju ñaaw ci baayam ma def tekk Ousmane Sonko pourtant bokkuñu ndey bokkuñu baay de mais dëkk bi di lëmbe ay nit jóg di saaga Ousmane Sonko man lépp maa ko dakkal maa leen won ni maa leen gën a ñaaw làmmiñ ëpp leen esprit ëpp leen fit ëpp leen idéologie gën leen a yeewu te gën leen a foroxle daq leen a wax loolu maa ko dakkal et ma gisee certains faux patriotes na non moo laa dafa war a bàyyi saaga yi bu ñuy saaga nday Ousmane Sonko foo nekkoon bu ñuy jiiñ Ousmane Sonko de violeur foo nekkoon bu ñuy jàpp yaayam ju baax jee nekk Ziguinchor toog muñ buñ koy saga diko saga fo yow yow tu me dis que tu es patriote tu n'es pas patriote quand on insultait la mère de Sonko tu étais où quand on accusait Ousmane Sonko de violeur tu étais où quand on allait prendre des documents pour sauver le soldat Ousmane Sonko des mains des oppresseurs tu étais où Quand on la waalo neex nga je suis qui, man nuy anduma ci mais tu étais où quand on était là mois de mars di reyante gars yi di di indi dili di kalaate dili di dàq ont ñee doon saaga Ousmane Sonko di des des di leen dawloo ba daw ban partition pour sauver Ousmane Sonko des mains des oppresseurs boo tu jouais. Tu la neex ku nekk je suis patriote quoi man xoolal man ànduma ci Je suis man intéressé wu ma bul ànd ci lu may xeex je m'en fous tu représentes absolument rien devant moi li ma defal Ousmane Sonko yow defaloo ko ko dama fekk ñiy saaga yaayam ma jël ñiy saaga seen yaay ma saaga seen yaay ñoom saaga seen ba léegi ñoom ñëpp daw gaalu dof du teer dañ doon saaga Ousmane Sonko yaayam ma saaga seen yaay ba yulli seen silibu yaay yi ñu daw léegi de wax ji léegi lan la moo laa na bàyyi saaga yi moo laa na bàyyi moo laa na un an deux ans derrière déggoo woon moo laa na bàyyi saaga yi de yee ne pour ne pas entendre le de l'ennemi il faut en faire autant dañuy saaga Ousmane Sonko ndey di ko toroxal di ko wàcce di wax lu ñaaw ci ay waajuram ñii pour ne pas entendre le bruit de l'ennemi il faut en faire autant bu ma buggee ñuy noppi damay dugg ci seen silib ñu ñu gëm génn seen silib yi génn seen mbóot yi ñoom dañuy daw léegi kenn waxatul yaay Ousmane Sonko moo laa na bàyyi wax ji dañ doon jaay dof rek moo leen maa leen gën a kacakañe dañ doon jaay reewantu moo leen ni maa leen gën a ko dañ doon jaay mën a wax moo wan leen ni man fii la wax ji xoolal leen deewu leen da ngeen di dof doflu ñoom ñu pokkal lem ba mu ron ñu toog moo laa di lëmbe kon tey bu ñu toogee tey ba ñu may ñooñu jàmm dama bokk ci ñu ko liggéey bu ma bu ñu bu ma bu ñu mayete yaay usman Sonko jàmm dama bokk ci ñi ko liggéey bu kenn talatul di saaga yaay Ousmane Sonko man dama ko liggéey kenn talatul saaga papa Ousmane Sonko man dama ko liggéey te bu ma neexoon ne sama yoon nekku ci ndax saaga wuñ sama papa jamono jooju saaga wuñ sama yaay ma dem au front Ousmane Sonko neexalu ma yónniwu ma ma dem au front ne damay reyanteeg ñii ba ñu bàyyi yaay jàmbur jii nga xam ne musuma ko gis xamuma ko ñu koy fenal ma dugg au front ëpp la làmmiñ gën leen a gën leen a buccërtiku di dugg fu ñimewul di laal ñoom ñëpp daw bu ma ko defaloon kon ba léegi ñu ngi saaga yaay Ousmane Sonko kon ba léegi ñu ngi wax ñu ñaaw di ko teg ci waajuru Ousmane Sonko yi xanaa tey la neex xanaa tey la neex booy dama ko fight liberté bii ñu may tey waa clan Ousmane Sonko man dama ko fight dama ko jaayante depuis mars ba léegi maa ngi wax te lépp kenn fayuma gañu ma ci dara kon loolu rek képp ku ne pastifiant la da ci war a sant parce que ñële dañuy xeexal ñeme dañ leen di fay kuñ ci fayul nga noppi man ma leen di xeexal mais yéen fayu leen ma te ba léegi kon donc ku munul ku go ku gore day delloo naar bi xorom ku garewul dafa waroon noppi loolu mooy ngor man gënu leen ma xam ma ma déggee ñeneen non non ñun dañuy am yu ñuy incarné ñun pastefien yi dañ am lu ñuy incarné te waa ji incarné maa la yow bu may incarné yow xamoo lu ñuy incarné idéologie bu ñu koy incarné ñun ci rap lañ ko incarné ay idéologie am fit for life wax dëgg forever di rap politique ñun boobu yow tekki woo dara nga may wax waxu idéologie rappeur di am ay concept di am ay philosophie di am ay idéologie ñun bu ñuy dox ci ay idéologie ay principe boobu yow foo nekkoon xaw xëy na yaa ngi jàng sax yaa ngi nekkoon fële wala nga nekkoon suñu fans di tàccu dox ci ay idéologie ñuy def ay afro l'homme noir en quête d'identité perdue bu ñuy dox ci loolu foo nekkoon nga ne may gëmloo tey nga tey àdduna dox nga naan oui non c'est ñun li ñuy défendre ñun idéologie bi kii doxewul noonu dama ne sa bàyyi sax maa gën a xam idéologie bu ñuy défendre xam idéologie Ousmane Sonko moo tax ma adhéré ko te lu tax ma adhéré ko parce que sama idéologie la daf ma fekk ci idéologie bi ma nuroog moom idéologie moom ñu boole suñu idéologie parce que benn bi la loolu moo ñu boole Ousmane Sonko du ma fansam duma ma fiisam du ma markatam dañoo bokk idéologie kon man ngay jàngal idéologie toog ba léegi faux patriote non idéologie daan da ngay jël ñoom ñoom idéologie bu ñu incarné incarné woo dara da ngay fenn incarné woo benn idéologie xamoo sax luy idéologie bi Parmi les faux il y a beaucoup de faux patriotes parmi vous, hein. des faux patriotes. Hein. au front de Rente pour sauver le soldat Ousmane Sonko gars yi faut que ñu depuis mois de mars je parle je sauve maa Je taxaw mel ni Baye Fallou Ousmane Sonko ñële dañuy liggéey mati trois trois trois pommes yu nëpp ko fayatul day bàyyi parce Gabriel vous Gabriel Kane bu waxee fait, koy fay bu fait góor jigéen bi nekkoon fii di wax ratatat fay buñ ko fayul dafa dem yoonam dafa dem yoonam góor jigéen bi lu mu tudd Tandia dañ ko doon fay muy wax di yàq deru Ousmane Sonko may xeex ak moom di ci xëpp kaani muy saaga sama papa di saaga sama yaay te pourtant man Ousmane Sonko laay xeexal laa laa doon sauvé mañ ciy saaga sama papa papay Ousmane Sonko ak yaayam dama jël sama papa ak sama yaay tay la ko pour sauver papay Ousmane Sonko ak yaayam ñu saag sama papa sama yaay pour ñu mun a bàyyi papay Ousmane Sonko ak yaayi Ousmane Sonko kooku kooku bu mérité wul respect ak estime amoo loo koy wax ndax yow defoo ko yow ñëwoo xeex pour ñu saaka sa baay saaka saaga sa yaay pour libérer sa papay jàmbur ak yaayi jàmbur ma jël sama papa ak sama yaay teg leen nii ñu leen di saaga ay ndey may xeex ak noon yi di saag pour ñu bàyyi papay jàmbur ak yaayi jàmbur loolu mooy ngor te yow teetewu est-ce que tu as pu sauver ton père Tu as pu ce tour papa sa pour sauver papa parce que c'est un leader il faut le protéger et protéger tout ce qui tourne autour de lui on l'a fait Tu as bu waxul bu waxul buñ ko fayul day man tu fayu waaw maa ngi ci live de. waaw amul problème moo taxoon ma bëgg a participer parce que yow xam nga dafa am foo laal fu am solo. xam mm-hmm. nga combat bi wax dëgg yàlla lii mooy don de soi pour la patrie ndax da nga doon nit koo xam ne ku la xam. Mm-hmm. xam ne nit ku bañ injustice nga. dëgg voilà donc xam nga yu noonu boo koy def. suñu noon yi ñoom toujours dañuy nekk ci suuf di xamba di la jaxaseeg àddina. dëgg la la def. dëgg la seen liggéey. nan ay patriotes. yàlla yàlla ak yonente bi xam na ne les patriotes ci as le respect des patriotes xam nga patriote. li nit ñi réeree mbir. c'est pas que rek maanaam képp ku bokk Pastef wala ku bokk ci parti politique mooy patriote non non non. Mm-hmm. ku bëgg réewam. di liggéeyal réewam te yàlla rek tax kooku mooy patriote. Mhm. il faut loolu ngay nga koy bàyyi xel ak dof yi ñenn dof jaruñoo toll yow li liggéey xam nga ko ñun xam nañu ko sénégalais yi xam nañ ko àdduna xam nañu ko. dëgg la. donc ñi nga xam ne ay mer ngemb lañu ñooñu il faut les c'est des lâches buñ la wax loo dara. buñ la buñ kenn yow toogal fa nga toog rek. waaw ah, waaw ndeysaan. Mhm. loolu mooy dëgg xam nga Mollah boo nekkee ci lu baax. Mhm. bul gestu yow nekkal ci li nga nekk tegul te gestu. ndax boo tekkiwuloon dara du ñu wax ci yow. gëm ma rek. Mm. su fekkoon yow amuloo benn njëriñ ci Sénégal kenn wax ci yow. tout dafa am ñu bari ci réew mi da nga leen teree nelaw loolu bàyyi ko xel. Mm-hmm. dafa am ñu bari ci Sénégal il ne dort pas à cause de toi. doomu aadama lépp mënta parfait. pour mm. faire des omelettes il faut casser des œufs. tout à fait kenn parfait ah dëgg la de. yow toppal fa nga topp. ñu ngi lay masawu ci mettit bi la dal tiis bi la dal dal sa famille ñu ngi koy nakarlu di la masaw. Ah, loolu mooy dëgg macha allah. Mm-hmm. yow continuer sa combat bul gestu bu leen faale parce que bu leen gëraloon tey Mollah ak Ousmane Sonko Mollah ak patriotique bu leen faale yow nakal fa nga nekk rek. Ah, ñooñu di la tapas dañ la bëgg a jaxase ak say xarit. ak say ay dañ la ay noon bu leen faale de. Mm, mm. nekkal ci li nga nekk rek. sa liggéey rafet na. te paa bi koy masaw. maire bi ñu koy masaw mala mm. amul lu ñu déggul ci àdduna bi suñu yaay yi suñu pap yi lépp Sénégal. c' est pas la personne de Ousmane Sonko qui nous intéresse. c' est le Sénégal d' abord. parce que Ousmane Sonko même idéologie bi mu la am même idéologie bi patriote yëpp am ci àdduna la am. mooy lu baax pour réewam. lijjantiwul leneen. yow Mollah Morgan bi ngay ci combat bii da nga ñëw ak say responsabilité bopp di liggéeyal Sénégal te yàlla rek tax kaaroo ci dara. waaw man kenn fayu ma. Mhm. kenn fayu la kenn joxu ci dërëm. kaaroo ci dara. Mhm. kaaroo ci sa mers. donc yow continuer sa combat boobu. gis nga un jour viendra. Mhm. Mollah xoolal xale bi génn àddina tey. y un certain Moussa. suñu suñu jarbaat bu génn àddina Moussa Soumoulou. oh yàlla ko yàlla yërëm mooy accident bi noonu. oh yàlla ko yàlla yërëm c'est un jeune patriote est ce que gis nga tey respect bi mu am ci réseau bi. Mm-hmm. ko waaw. voilà parce que loolu mooy don de soi pour la patrie. Mm-hmm. l'histoire retiendra Mollah Morgan li ngay liggéeyal Sénégal. Mm-hmm. un jour viendra et l'histoire retiendra bàyyil gaa yi ak seeni coow yi. ak seen i sànni xeer yi te yow nga concentré wu ci li ngay def loolu rek laa bëggoon wax. vraiment kontaan nañ sa liggéey trop. merci beaucoup kontaan nañ ci trop. macha allah yal na la yàlla aar. Mm. taxaw la waa salaamaaleykum wa rahmatulah. yaa jaajëf merci beaucoup merci grand wax ji rafet na am na solo c'est comme ça euh, lu may wax rek moom mooy il faut ñu focus sur l'essentiel li ñu doon waxtaan bi mooy débat d'idées yi ñoo baax débat d'idées yi ci plateau yi ci wax ji xam nga dafa baax. Il y ñoo xam dañuy transcender affaire comme euh Hannibal Jim j'ai beaucoup d'estime et de respect pour ce gars-là <laughs> il transcende des en fait les problèmes yo c'est des c'est des détails pourtant Hannibal c'est quelqu'un que j'ai trouvé dans le combat Une urgence panafricaine ak ñum ko ça fait longtemps hein. <laughs> Hannibal Jim ku a à la sincèrement ci xex la ko xamé xamanté wuñu ci ay bus wala xamanté wuñu ci ay soirée xamanté wuñu ci ay boîte de nuit ci yanu xeer dakanté lañ xamanté ak coy yi ci ay xeexal Sénégal lañ xamanté urgence panafricaine lañ xamanté ci ay marche lañ xamanté mais quand je le vois tay damay kontaan parce que damay xam ce gars là je l'ai vu ñuy grandir ndo ensemble depuis 10 ans nek ci xex bi c'est quelqu'un qui mérite du respect et pourtant am nañ fi bif man sax man maa man maa ko song amuñu sax bif man song naa ko fi buma wax ak benn way Babacar rebelle bi song naa ko fi mom mais tay bumu déssé mu wara dox <laughs> non mais mais j'aime bien ces genre de gens là bumu déssé pour mu wara taxaw matal devoir citoyen mais wadi il s'en fout gisul ni Mollah attaquer na ma fi wala mola wax na ma fi wala Mollah nag doo dafa ñew def ko que nga Jim non non non non quoi non non sincèrement c'est quelqu'un qui... je me dis que nan la waa transcender tous ces genres de problèmes et de détails ba ñeu taxaw matal devoir patriotique citoyenam citoyen Nous famille Nous subir bu subir injustice bu subir une tentative de meurtre gis gouvernement bi rotti ci loxom taxawé neul ci dara dara procureur autosaisirul ci lu mel nonou Hannibal taxaw malgré que li man bëgguma man loolu la wax dama né man bëgguma kañot man kenn kañotal tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit ñun kañotaluñ la quand je l'ai vu faire daf né man ñun la pour une famille pleurer benn famille bu subir injustice benn famille bu bu rëcc ci tentative de meurtre benn famille bu bu ñu toroxal benn famille bu ñu bëggoon rey benn famille bu ñàkk benn famille boo xam ni dañ ko yàq benn vieux bu ñu yàqal lu ay alalam bu mu liggéey quarante ans ñun ñoom moom la ñuy patri moom xëy na kooku dafa bokk ak yow rek mais ñun kooku la ñuy kañotal ma ne ko mais respect mon frère mais kooku sincèrement c' est un vrai loolu mooy patriote patriote du am ay jikko góor jigéen ay jikko ay defante ay jikko fayante loolu du patriote ay jikko non man xoole dinaa ci jàpp sax mais ki ànduma ci lu mu wax de mais <laughs> yow loolu du patriotisme man daal quatre-vingt-dix pour cent yi ci lu muy wax yëpp ànduma ci mais ba te faire <laughs> ku la wax nga ànd ku la wax nga ànd ci oui mais dinaa ko partager mais malgré que ànduma ci mais yow àndoo ci indil nit boo àndul ci dara da ngay indi man bu ma ne ànduma ci lii damay teg ci lu ma ànd mu moom Hannibal Djim def cagnotte boobu noonu mais moins de une heure de temps y deux millions moins de une heure de temps y deux millions famille bu subir benn acte terroriste acte boo xam ne bu doon fii sur le saint coran li am Sénégal ci kër ñoom famille Mollah Morgun bu doon fii la ma ñàkk sama ndey wala Amérique télé yi tey dinañ ko teg suba ba guddi bu doon Amérique la xew télé yi dinañ euh, États-Unis dinañ ko teg suba ba guddi bu doon France la xew lii tentative de meurtre bii bu doon euh, acte terroriste bu doon euh, France la xew di tele yëpp dinañ ko teg suba ba guddi Sénégal la lii di xaw journaux yi duñ ci bind télé yi duñ ci wax gars yi xool ci réseaux sociaux la kenn waxut lii bu amoon fii télé boo ubbi da ngay gis histoire bi am sur le cinq Coran parce que yi nga dëkk yu baax dëkk yi xam ak ak yelleef doomu aadama respecté leen dëkk laa wax mais Sénégal lay am journaux yi romb télé yi ba paré lu plateau oui est-ce que moi est-ce que tu papa pas est-ce que ne yayam lu est-ce que ils ont des problèmes mais Hannibal le dafa dépasser kañotam na partagé ay patriotes ñu fekk ma fa <laughs> sa ci du sa du sa la man leen <laughs> <laughs> bal leen ma génn naa ci gis nga partagé tuma nag ñoom ñoo ma fekk foofu ne ma wuyu ma patri euh, luñ la dajalaluñ la suñu génnal ci suñu kañoot bal leen ma nag génn naa ci seen <laughs> génn naa ci man daal dinaa ci participer kon en tant que patriote dinaa ci dugal sama xaalis en tant que patriote participer defaguma ko nag parce que deux millions yooyu moom sama xaalis duggagu ci mais daal dinaa bu ma paree nii naa dugal sama carte bancaire dougal ci man sama participation comme nenañ ma génn ci sama yoon nekk ci moom ma moomaanuma mais dinaa ci def